laqin lisaani waxlulan minhu loqat wajcalhu zakiran wa shakiran abad wajcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen balu àq bu baax te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal comme ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen rek ci ay bis bu ne di ànd ak yéen ci lenn ci téere sëriñ bi radiallahu anhu te ñu toll ci téereem bi nga xam ne moom la tudde Munawwirus Sudur wala ñu koy wax Tanwirus Sudur te suñu bind bi wéy ñu tolloon ci fi nga xam ne foofu la sëriñ bi doon wax ci xam-xam yi nga xam ne mooy xam-xam yi gën te mooy xam-xam bi nga xam ne mooy jegeel jaam bi boroomam bi subhaanahu wa taala te loola bu ñu ko waxee kenn mënu caa génne at tawxid muy xam bi nga xam ne mooy tax nga mën a wéetal sa boroom waaye kenn mënu caa génne xam bi nga xam ne mooy al fiqh te mooy xam-xam bi nga xam ne ci la nit ki di sukkandiku ngir mën a jaamu boroomam bi subhaanahu wa taala waaye it li nga xam ne mooy ab te mooy tolloo ak al ihsaan te mooy xam-xam bi nga xam ne ci la nit ki di sukkandiku ba buy jaamu yàlla man koo sellal waaye man koo def ci anam ga gën a mat ci suñu bund bu mujj foofu lañu ñu taxawoon ñuy woy ak ci suñu bindub tey rek di door fi nga xam ne foofu la sëriñ bi di doore ci muqaddamatun wax ne lii li ñu jiital la ci téere bi téere bi waxoon nañ ne am na ay buntu waaye ba tey duggagunu ci buntu yi euh, ci li sëriñ bi jiital ci téere bi te mooy ay ndénkaan ci la suñu bindu tey fas yéene wax incha allah mu wax ne muqaddamatun lii lu ñu jiital la mu ne yaa ayyuhal gaadi e yow aji xëy yow aji xëy ji ila taallumi jëm ci xamlu haaka jàppal wasiyat yi sama ndénkaan waraaxe te nga sàmm kalim yi samay wax yow mi nga xam ne yaa xëy ngir jublu ji xam-xam yow mi xëy di sàkku ji xam-xam yow mi xëy di wuti xam-xam jàppal sama ndénkaan lii nga xam ne moom laa lay bëgg a dénk te nga sàmm ko bu baax a baax te nga jàpp ko bàyyi ko xel di ko jëfandikoo bu baax a baax a baax a baax kon day mel ni euh, képp koo xam ne euh, sàkkukatu xam-xam nga euh, sëriñ bi mi ngi lay dénk ci lii nga xam ne moom la jiital ci téere bi mu ne li wajhi rabbika Euh, uqsudi taalluma na nga sàkku xam-xam te jublu ci sa jëmmi borom rekk tax uqsud na nga sàkku a taalluma xamlu li wajhi rabbika ngir sa jëmmi borom takun nena kon danga nekk surural awliya yi mbégteem waliyu yi wala ulama ak borom xam-xam yi laa tatluban bul sàkku xam-xam mujarrada riwaaya ngir rafle ak nettali balli fi ne kay dumma na nga tàppe ilmahaa sa xamlu ila diraaya jëm ci ak xàmmee jëm ci ak xàmmee ak di ci xelaat li nga xam ne moo lay jariñ te mooy li nga xam ne moo dox sa diggante ak sa boroom ci ay jaamu yàlla waaye li nga xam ne moom nga war a gëm ci la aju ci bis li nga xam ne moom nga war a gëm ci aju ci uh, ak dekki li nga xam ne moom nga war a gëm ci li aju ci euh, faatu wala la lay xew ca biir bàmmeel yooyu yëpp booy sàkku xam-xam na jublu ngir xam ca loola lépp waaye bul ko sàkku ngir euh, euh, di koo xam ne foo toll rek da nga ci werante wala foo toll da nga ci solo rek di solo di woy rek waaye jubluwoo ci lenn lu dul loolu kon sëriñ bi nee na uqsudi na nga jublu ataalluma xamlu li wajhi rabbika ngir se jëmi borom takkun kon danga nekk suruural awliyaay mbégteem wali yi wala ulama yi ak borom xam-xam yi lu ban bul sàkku xam-xam mu jarode riwaaya ngir di aji rafle ak solo balli fi ne kay dumma na nga tàppe sa xam-xam boobu ngay sàkku ilmaha ak xamloom ila diraaya jëm ci ak xàmmee ràññee lépp loo xam ne moom nga war a ràññee kon nit ki buy sàkku xam-xam na ko sàkku te jëmmi suñu borom bi subhaanahu wa taala rek tax waaye bu ko sàkku ngir bëgg di ci solo euh, bëgg nit ñi di wax ne kii dafa am xam-xam wala bëgg nit ñi di la màggal yooyu yëpp sëriñ bi euh, tere woon na ko ci euh, masalikul jinaan wax ne booy sàkku xam-xam na ci jublu jëmmi yàlla rek waaye bul ko sàkku ngir werante bul ko sàkku ngir puukarante yooyu yëpp nga xam ne euh, leeral nañu ko nanga nga xam ne noonu lañ ko war a sàkkoo waaye nga xam ne moom lañ ci war a moytandiko buñ koy sàkku tamit leeral nañu ko moo tax boo demee ci masalik ma ngay wax naa fal ilmu laa bi kasrati riwaya bal innahu nuurun maa diraya faqsud bihi wajal jalili ya fata tajid jazaka naiman sabata muy wax ne xam-xam bi ak leer la goo xam ne euh, ak leer la goo xam ne euh, nit ki war na ko gëstu di ko sàkku waaye nag bu koy sàkku bum ko sàkku ngir di werante bu ko sàkku ngir di euh, bëgg ak solo bëgg nit ñi di wax ne kii day ku xam la waaye na ko sàkku rek ngir génn ci ak réer waaye ngir xam ni nga xam ne noonu la war a jaamu suñu borom subhanahu wa taala waaye ngir xam ni mu war a sellale ci digganteem ak suñu borom subhanahu wa taala kon sëriñ bi nee na su fekkee ne bi koy sàkku de loolu nga ci jublu muy sellal sa digganteeg sa borom waaye xam ni nga war a jaamoo ak sa borom xam say faraidul ayn xam li nga xam ne moo la war lépp nee na su fekkee ne loolu mooy sa jubluwaay ci saaku gade yi nee na da nga am xéewal goo xam ne gu màgg màgg màgg la xéewal goo xam ne suñu borom subhanahu wa taala dana la ko saxalal moo tax mu wax ne laa taqsudi bul jublu bul bul jublu ca sàkku xam-xam nga istimaaratal wujuhi jànguk jëmm ya laka ñeel la la daa bat ika fassak tàmbali zaataw ji ngay boroomu jublu balli fi ne kay uksidi na jublu alxuruja génn min dalalin ci ak réer wa ismatan akuk fegu min dararil idlaali ci lori way réera la ñi euh, bi nee xam-xam de boo koy sàkku bul ko sàkku ngir bëgg jëmm yi jublu si la maanaam nit ñi euh, jublu si la ngay sàkku xam-xam euh, coono bu ne nga ko ci daj te dara dara soxaloolu la ci loolu lu dut nit ñi xam ne yow mi borom xam-xam da bari xam-xam su ko defee buñ la gisee di la màggal di la sukkal ak yow daal loolu rek nga ci jublu sëriñ bi nee na loolo bu ko kenn jubloo sàkku xam-xam waaye nit ki buy sàkku xam-xam la mu ca war a jublu mooy génn ci ak rek waaye ba xam naka la war a jëflante ak li nga xam ne mooy ndigale suñu borom subhanahu wa taala ak naka la war a moytandikoo li nga xam ne euh, mooy tere yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala tere moo tax mu ne mahma talabta foofu sàkkoo al ilma xam-xam aw siwaahu wala leneen lu dul xam-xam li nafsi ngir bakkan dong wal maali ak alal wama ak lépp nga xam ne tahwaahu da nga ko sopp ah, fa biata kon jaay nga uxraaka sa ëllëg muy yowmal xiyaam bi duniyaa ci àdduna isan kon moo tax mu ne fa firra na nga daw min haza ci loole mataataraaka fum la gaare sëriñ bi nee na soo fi sàkkoo xam-xam de wala leneen lu dul xam-xam moo xam dara la moo xam alal la moo xam loo man di sàkku ci àdduna te ba nga koy saaku sa bakkan rek moo tax nga koy sàkku ngir bànneexu bakkan rek moo tax nga koy sàkku wala ngay sàkku alal te euh, bànneexu bakkan ak euh, jëfe ci sa euh, bakkan rek moom nga ci sàkku wala lu neex sa bakkan rek moom nga ci jublu sëriñ bi nee na loolu de saa boo ko defee xamal ne kon jaay nga sa àdduna kon bu ëllëgee yowmal xiyaam moom pertaage rek nga fay nga fay dunde kon booy sàkku xam-xam wala leneen looy sàkku ci àdduna na ko sellal sàkku ko te suñu borom subhaanahu wa taala rek tax soo ko defee noonee bu boobaa suñu borom subhaanahu wa taala dina lay ci defal a yiw waaye dina la ci defal tuyaaba ngir sell ga nga xam ne moom la sell waaye niya mu yéene ju rafet ji nga xam ne moom nga moom nga ci jiital muy xusnu niya jinga xam ne moom nga ci jiital loolu dana la ca defal ay yiw yu baree baree bari kon lépp loo xam ne moom la doomu aadama bi di sàkku ci àdduna moo xam xam-xam la moo xam leneen lu mu mën di doon loo xam ne daf koy yittewoo kon na ko sàkku ci ak sellal waaye na ko ci ak rafetal waaye na ko sàkku te jëmmi suñu borom subhanahu wa taala rek tax ndax boo ko sàkkoo ngir bakkan bu uh, sa bakkan yëgatul bànneex bu boobaa loola perte nga ko te amoo ca benn ab yool boo ko sàkkoo ngir leneen bu loola jeexee rek jeex na waaye su fekkee ne nag da koo sàkku te sa jëmmi boroom rek tax bu boobaa moom yiw wa dalay desal uh, continuer uh, di la dimbali bu baax a baax a baax a baax moo tax sëriñ bi di waxaat feneen ci masaalik ba tey ne wa in taallamta fa billahi istain summa bi ixlaasin bi xalbin mutmain nee na su fekkee ne yaa ngi sàkku xam-xam de wala yaa ngi dem di xamlu lu nanga na nga dimbalikoo sa borom bi subhanahu wa taala bul dimbalikoo lenn lu dul yàlla ci lépp loo xam ne moom ngay jublu waaye nag rawatina sakku xam-xam nee boo koy def nanga ko sellal ànd ca xel mu dal waaye it boo koy def na ci Euh, dimbandikoo sa borom bi subhaanahu wa kon yooyu su fekkee ne dajale nga ko bi ngay sàkku ji xam-xam kon loolu mën na laa euh, dimbali bu baax a baax a baax kon aji sàkku ji xam na fexey ba buy sàkku ji xam-xam mu jiitandikoo ne xam-xam bi muy sàkku de da ciy dimbandikoo ngir mën a topp suñu borom bi subhaanahu wa waaye bu koy jublu ji mu jublu ko te jëmmi yàlla ji rek tax waaye bu koy defit na ànd ak xel mu dal xam ne lii suñu borom subhaanahu wa moo koy moo moo ko ci jàppale ba lépp loo xam ne moom la ci bëgg suñu borom subhanahu wa defal ko ko kon yooyu lu ama am solo la ci sàkku xam-xam mooy nga def ko te suñu borom subhanahu wa tax waaye boo koy def nga ànd ci ak xel mu dal ànd ci ak mbégte waaye nga def ko te jublu ci dimbali koo mën topp sa borom subhanahu wa taala rek comme ni nga xam ne euh, noonu la ko euh, digle moo tax sëriñ bi di wax fii ci euh, xasida gi ba tey ne amma iza tawajjahat ndaal saa jubloo xuluubu man xoli ña nga xam ne asartahum jamonoonte nga ak ñoom ilayka jëm si ci yow min ahli zaman ci ñoon jamono min xayri xasdika ci lu du sag jublu fa allim na nga xamal man képp ka xam ne tara rot na ci rot na ilayka jëm ci yow taaliman ngir ngiru xamlu yakuffu yakuffu kon ñu fegal ko bataran ak euh, rëy nee na saa boo xamee ne ñi nga xam ne ñoom nga jamonoonteel de muy sag maas wala ñi nga xam ne ñoom nga jamonoonteel muy ñoo xam ne yaa leen mag wala ñoo maaseel ñoo ñëpp de saa bu ñu déggee ne ab xam-xam ngi ci yow waaye wone ko puukare woowoo ko saa bu ñu déggee loolu ba euh, wut si la ngir bëgg a euh, am ci xam-xam boobee nga xam ne moom la la suñu borom sédde sëriñ bi ne na nga leen xamal la nga xam ne moom la ñuy sàkku ci yow ngir loolee euh, mën na laa fegal li nga xam ne mooy ak ak rëy waaye fexeyal ba boo koy def bu la ci euh, bul ko def ngir rëy rëylu bul ko def ngir war neen ni nii laa toll waaye na ko def rek te suñu borom subhanahu wa taala tax nanga leen xamal rek te jëmmi yàlla rek tax waaye bul ko def ngir leneen kon euh, bu ñi nga xam ne ñoom nga jamonoonteel saa bu ñu xamee ne yow mi borom xam-xam nga. ba ñu jublu si la di ko sàkku ci si ci yow na leen xamal rek te jëm yàlla tax waaye bu leen xamal ngir di ko puukare woo waaye bu leen xamal ngir di di ko di ko di leen ko ëppalanteel ay mbagg wala nga leen koy euh, diirante ay mbagg di leen won ne man kat maa leen euh, féete kaw wala maa leen ëpp daraja yooyu yëpp bu leen ko woon waaye nanga leen xamal rek te jëmmi suñu borom subhanahu wa taala rek tax jëmmi suñu borom subhanahu wa taala rek tax nee na su fekkee ne loolu de def nga ko. bu boobaa loola ca ngay amee la nga xam ne mooy euh, ngërëmul suñu borom bi subhanahu wa taala moo tax mu ne walaazimi na nga taqoo alxasiyata ragal yàlla watta adduba ak ay teggin maa tawaadoy ànd akuk toroxlu yazurka kon dana la ziyaar si al ba euh, worom teggin ya nee na na nga taqoo li nga xam ne moo di ak ragal yàlla sooy sàkku xam-xam na nga taqoo ak ragal yàlla waaye booy sàkku xam-xam na nga takkoo ak ay teggiin waaye booy sàkku xam-xam na nga takkoo ak ak toroxlu waaye bu fekkee ne yooyu yëpp daje ne ci yow la nga xam ne moom la lay jural rek mooy xam-xam boobee nga suñu borom mën na la ko jotale ba nit ñi wëlbatiku di ko sàkku ci si ci yow waaye nit ñi wëlbatiku di la ziar si ngir xam-xam boobee nga xam ne moom nga amee tamit xam-xam boo xam ne buñu ñu gërëm la ndax xam-xam lu ama am solo la ci yoon wi te sëriñ bi radiyallahu anhu mën nañoo wax ne moom bokk na ci limu mu yoon wi loolu muy wax na al ilmu naafi wal amalu saalih wal adabul mardi ñett yooyu mooy li nga xam ne moo fondé e, yoon wi muy e, xam-xam bu am njariñ waaye jëf ju baax waaye teggin yoo xam ne yu ñu gërëm la kon ay teggiin mënta ñàkk ci euh, aji sàkku ji xam-xam waaye ragal yàlla itam mënta ñàkk ci aji sàkku ji xam-xam ndax nit ki lu mu bari bari bari xam-xam te amut ragal yàlla daanaka kooke kenn du ko jàppe ab euh, euh, kenn du ko jàppe borom xam-xam kon nit ki su fekkee ne bala ñu koo jàppe borom xam-xam dëgg-dëgg mooy xam-xam boobee da ko am ba pare boole ko ragal yàlla waaye boole kook ay teggin waaye boole kook ay ak toroxlu xam ne suñu borom subhanahu wa taala rek mooy ki nga xam ne moo ko xamal li nga xam ne euh, moom la xam ndax yooyu mooy li koy dimbali ba mu man caa am la nga xam ne moom la cay mébét ndax sëriñ bi mi ngi wax ci xasidaak euh, masalik ba tey ne inna allazi lam yaxsha rabbal alamin fa laysa bi aalimin walaw afnal funun ki nga xam ne ragalut suñu borom bi subhanahu wa taala kooku day du borom xam-xam donte ne kàggu yépp jeexal na ko donte ne lépp luy xam-xam ci kaw suuf maanaam yër na ko ci ni ñu ko mën a waxee kooku kenn du ko tudde borom xam-xam ndax lan ndax ah, la tax ñuy mën a nit eh, jàppe nit ki borom xam-xam muy ag ragal yàlla kooku daf ko amut kon su fekkee ne nit ki bëgg na ah, am xam-xam bu ko jariñ mooy na sàkku xam-xam ci ak rafetal waaye na ko sàkku te boole ca li nga xam ne moo mooy li nga xam ne mooy ñu war a sàkkoo xam-xam rasul bi ne wasaytukum maan bi rabbina an tatlubu ilman yajurru xasana xam-xam xam ne xam ne mooy ñot di rafet xam-xam boobu mooy xam-xam boo xam ne mooy xam-xam boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala ba pare mu xam ne suñu borom moo ko jox mu wëlbati ku delloo lépp yàlla toroxlu ci kanam suñu borom digganteem ak suñu borom subhanahu wa taala waaye may ko li nga xam ne moo di ak ragal yàlla ndax suñu borom mi ngi wax ne ah, borom xam-xam rek ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla ndax ñoom jàng nañ min alxalaali min asbaabi musiibaati war nañoo ragal bu baax a baax a baax lay wax ne innama borom xam-xam yi jëfe seen xam-xam day ñu yaakaar ne xam nañ li suñu borom subhaanahu wa di digle waaye xam nañ ni suñu borom bi subhanahu wa taala di aaye te ñu war ko moytu baax a baax a baax a baax kon euh, sàkku xam-xam ci am sàkku ko ci ak ragal yàlla waaye sàkku ko ci boole ci ay teggin waaye sàkku ko boole ci ak loolu mooy li nga xam ne mooy andi nit ki tawfeex ci xam-xam ba ko sàkku ko jariñ moo tax sëriñ bi di wax ne waalam xamal bi anna al ilma naka xam-xam wal amaana ak xam-xam day ka adabin ni ki ay teggin dana la fàggul al kamaala ak mat dana nit ki su ne bëgg naa mat bëgg naa am ak xam-xam di jëfe xam-xam bi mu sàkku waaye bu koy jëfe boole ay teggin nee na de saa bu ko nit ki euh, taqoo jikkowoo man na ko fàggul li nga xam ne mooy ak man te it moom dong mat waaye nag mat bi nga xam ne mooy matuk doomu aadama moom suñu bi subhanahu wa taala moo di sàkku xam-xam ba pare di jëfe xam-xam bi waaye it buy jëfe xam mu boole kook ay teggin kon loolu lu ama amam solo moo tax mu ne man lam yaxuz képp koo xam ne laxu min haasihi yii ñu wax muy xam-xam ak jëfe xam-xam ak ay teggin shay'an dara wala yuhibbaha sopp ko fa innahu naka moom zalama na an nafsa bakkanam sëriñ bi nag képp xam ne day sàkkuwut wala wutut li nga xam ne mooy yii nga xam ne moom lañ wax fii tey làkku bi benn xam-xam làkku làkku ci benn tey bëgg cee xam benn gëstu ci benn ngir xam ko waaye sopp ci benn